a komin kake ñamin de rong a so programme o lang a luntan bala in this noble platform of ours yalon ko jamaya gambia banko gambia bantala e ka da dinken daw coming back Nyamin Dorong. Sure. I believe he has a lot to give out, Sister A good Budgewil. yaay is awa jaas salaamaaleykum wa rahmatulah àddina wërngal képp ñu ngi leen di nuyu fu waaye mën a nekk ci sa tur ak sa sant ah, ñuy sant yàlla beneen yoon bi mu may fekkee ak tal tey ci bisi ba beneen épisode ñu amal leen gan gu mucc ayib mhm. ah, gan gi nag ah, li olof di wax naan tur day wuyu borom dinkendoo ñun ñëpp ñu xam xame ko ci doom bu barkel mhm. doom bu barkel naka tey moom moo ñu seet si fii ci suñ plateau olof nag li muy wax dafa neex nee na na du teew ñuy euh, duñ def lu mooy rek jox ko kàddu gi euh, mu daal di nuyu askan bi waaye tamit mu nuyu li nga xamante ne moom mooy Sahel Network yeah I will start with a freestyle first before I will greet you all. Wow, you love that. And hence we all know that um, we are celebrating International Women's Day. So I would love to dedicate this piece to all those struggling women and all those women that have been, you know, in the field trying to do their best and also all those men giving this advice to them that women are not meant to be maltreated. Wow. So I would say this. Ima deda putu aike le jonti. Watokana jube kama nke fenti. itelefon ya nyindi pour ayke dingolu bati woto imanyana ka telimbali ya soko ka kumbondi anyama nyana ka snandi ajandi abalo manka limlimoti ni balon ka tala ka dabulandi je amala nyantoleti You promise to be loving, but you lie. Your responsibilities, you don't do it. Yere muloko, best buneka yang koy torahal di take meti ak nahar, diko joylo, do musa kontan ba diko begal. Yo ya bon, for any single mistakes he made, you push her to the wall, pin her against the wall. Ta ta wa wa on her face, bim bam zim zam on her back, puck puck on her cheek, while you bring her down to the ground. Outside you smile, inside you frown. She's supposed to wear your crown, but you let her down because you are a clown. Her happiness is what you drown. Now she looks like a mad woman in town. Anytime she is talking, her voice is thick with sadness. Leader for now, stop the violence. Women are not meant to be maltreated. Assalamu alaikum to all the wonderful viewers of ma sëy allahu akbar dégg sama nopp fu nopp bi laa la jox fi jot li ngeen dafa doy ci interview li ngeen doyal la li ngeen géej la li ngeen bugg la li ngeen rek la ah? Thank you so much for celebrating the women in the world. Yeah. Eh, macha allah di kendo nga def lu nice eh, ni nga nuyoyee eh, sant nañ la ci gërëm nañ la ci. ay kéew nga génne ekkati nga ay kaddu jëmale ko ci ko ay jigéen waaye tamit ekkati nga ay kaddu gaaral ko ay góor ni nga xamante ne nii noonu la ñuy dundee ak seeni soxna ci seeni kër ak mel ñu lay sant bu baax baax ñun jigéen ñi ci kaddu yi nga xamante wax nga ko fi ñung ngi koy rafetlu di wax ne lii rek li muy nduru mooy que ne li nga denc bari na parce que freestyle mu mel kon leneen li nga xamante ne moo nekk ci biir loolu nan la war a mel ah loolu beneen affaire la euh, waaye lii lim ñuy woon rek ne mooy euh, ñu invite nañ euh, a very young and talented man si suñu studio bi wax dëgg yàlla kon duñ def lu mooy rek delloowaat ko kàddu gi mu nuyu ak askan bi waaye mu nuyu ak waa Sahel. yeah asalaamaaleykum. Good morning to each and everyone that is viewing this amazing platform. I can say it's been a platform that are empowering youths to come here to showcase their talent and so also what they got. I can say I am lucky and I was um, really, really happy when I can say my wife and yes. somehow we were having some issues though, but we will settle. <laughs> yes, we will settle it down. When he called, she called me and invite me to this platform. I feel like wow, no matter what happened, no matter the schedule, I have to come and attend this because I feel like it's not only going to be a lucky platform for me, but also an opportunity for me to share out my voice as I I have been doing it for a long time now, and I'm really really glad to be here. Euh, macha allah euh, dañ kenn doo ñu loolu sant ak la wax dëgg yàlla parce que système euh, li Black Queen su fekkente ne moom mooy ki nga xamante ni ona la comme ni nga ko waxee rek da ngeen amoon bif waaye noonu la nag ñëpp dafa ama ñoom bif because dafa yabaate ñëpp la yeb yow jëkkëram nga amal kàddu gi del ut yàb ko xoolal ku ma koy ndóli laay man soo ma waxoon ne ko ma nga soo fi loolu nu ma danga koo wax ah. I tell you don't do it xoolal kii suma opposition